waaye lii bëgg di bëgg a xew ci réew hmm. mën naa dem ba àgg foo xam kenn du fu muy fu muy jëm te alxuraan dafa santaane woon ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab kon euh, fitna ak ay yow mi ko taal bul xam fa muy jëm fu kon nag ñi bokk dëkk ci am réew war nañu xam ne nañu sàmmoonte diggante ak dëkkandoo ki nga xam ne bokk leen diine sax taalaw ilaa kalimatin sawa sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illaa loolu la ci alxuraan santaane waxoon na ci alxuraan itam ne walaa tujaadilu ahlal kitaabi illaa billatii hiya ahsan kon ñi nga bokkul diine sax te ñu bokk ci ahlul kitaab booy def ak ñoom mujaadala la na xam fa nga war a fa nga war te def ko ci wa qawlu linnaasi husnaa looy wax nga woddu ko ba mu rafet ndax mu amal njëriñ nit kon loolu ñu ngi ciy bàyyiloo xel yi bu baax ñu xam ne wa ahbibil mu'mina lil imaani wa tubghidil kaafira lil kufraani ki nga xam ne yéen a bokk diine lislaam na ko jàpp sopp ko ngir li nga xam ne ak doon na ko jullit yéefar bi bañ ko ngir li mu doon jullit walaw ataa ilayka bil jinaaya zaaka wasa ni ko sëriñ bi waxee jawharul nafis donte jullit bi dalaa tooñ te yéefar bi tooñu la kon loolu listaan da ko santaane kon nag nit la mu wax ne moom la doon muy doon jullit war nay sàmmonte li lislaam santaane ci digg ba mbokk jullit kon daal ñu ngi fàttaliwaat ñëpp ñu seet ni nga xam ne réew mi noonu la sosoo woon ba nëgëni mooy nataawan fii maxtalaf na fii maxtalaf na wa nataxaawar fii maxtalaf na li nga xam ne maase nañ ci juboo ci déggoo ci ñu fexe ba sàmm ko déggoo ca li nga xam ne am nañ ci wut rek ñu waxtaan di fexe ba déggoo ca waaye ñu xam ne kat waxante lu ñaaw ci biir tarixa yi wala ci biir diine ji yokkul lislaam te ma yëwut tuyaaba ndax jëw sax dañuy wax ne boo jàkkaarloo nit di ko wax loolu jëw la jële naa nag mu faam la nga di ko wax te eh, ni ko Sëriñ Tuubaa misaali ci jëwxaru nafis rek dafa wax ne xaqiqatul ribati duna raybi zikruka xaala saxsi baxda la raybi ba ci biir mu wax ne am am na fu mu ko ci biir xisa boo xam ne ci rasulullahi la amoon ka koromboon am kenn ci ummahatul muminin wax ci jullit ñi wax ne haasi tawilun zeyduha faqaat fa saxatat mudxatu laxmin fa xalab salla alayhi llahuma sharaf bi annaha law hadamat la bi la budda min duxooliha naaru isa mawtu yaani ci koromboon rek mu ne kii de yére yim sol dafa gudd loolu bi ci yaa ngi laal suuf rasulullahi sallallahu ne ko gàqal bu gàq lu mbu deret génn muy médd mu ne ko nag tudd sa mbokkum julli fu mu néew noonu la dem ne ko loolu nag bu reesoo kenn mun laa jataat kon xasante ci biir jullit lu diis ci biir lislaam tey xam ne ngëm dafa for ci nit kenn ku ci ne ni ko xaddis ba waxee rek kullu mawludin yuladu ala fitra kon nañ xam ne kenn ku ci ne la suñu borom eh, bindi ci yow xam ne lool nga nar a gëm loola yàlla dogal na ko moo tax afa anta tukrihu naasa xatta yakunu muminin nit ñi kenn du leen forcé ci faw nga gëm ndax lañ xas ba gëm boo doon wax ba déwén te suñ borom tudd ko it mën a jëli ca kon nag Serigne Touba am na lu ñu waxtandiku la woon ci waxtaan wi wujj yi neewoon na li dal diggante nasaraan yi ak yahud yi na ngeen fexe bu mu leen dal yéen jullit yi mool waxaalitil yahud lay nasara ala shay'in waxaalitil nasara laysati yahud ala shay'in ñee ñii nekkuñ ci dara ñee ne ñii nekkuñ ci dara loolu werante la woo xam ne kenn xamut fu muy ak ji te amutu njariñ amutu mujj kon kenn ku ci ne la nga gëm sa morom gëm ko ne ko ñëpp sàmm loolu mooy indi jàmm ci réew mooy indi jàmm ci fu mu mën a doon te jàmm kat fu mu amut nit du tala jàmm yàlla jàmm fu mu amut nit du tala lekk jàmm fu mu amut nit du tala nelaw falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf ci jeexal nag li ma ci bëggoon leeral mooy li indi wax ji mooy téere boobu yi nga xam ne euh, boroom xam-xam yi gën a siiw ci réew mi taalif ko muy Iba Der moo indi coowal téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàng histoire dafa war a tege ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil bi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay nett la xamoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maanu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee màngu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo gëm sama moom dina ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii la mu wax ak kii la wax waaye li nga xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte ya bari na moom loolu moom ka ko bind boo ko may dindiwaat na ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumaat te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sax mën naa indi fi ci biir réew mi kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu mu rek reconnaître téere ba li fii defaraatuñ ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkul lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoo yor lool ci wàllu yoonu murid bañ ko liggéey kenn wowu leen ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca ndaje mu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fa ba def ko kër ji li yëpp ci Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci nekk wax leen seeni version ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu waaye ñoom nee nañ booba dañu mujj xamaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ dara am na ci yoo xam ne wala sukkandikukaay yi ndax naaj joxe benn firnde bu gàtt am na ci benn ci ci mastar boo xam ne dafa ne Sëriñ Tuubaa ci sareexa ak diinu ji seet la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibra Fall di jëblu kon loolu lañuy ñuy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Serigne Maodo Touré ba coole baye ba nar a indi fitna ci réew mi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee coole njuumte la am na ca feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne. bokk na ca lam ci wax it nee na Mamour Anta Sali tërtoon jàng dem moo tax Sëñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu di lu doon Mamour Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université la ndax li ëppoon ci réew mi ca yooyu jamono bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala aw wala bayaan wala mantiq wala fiqh moom la daaraam yëpp dañu fa daa jàngale moo tax dañuy wax ne université kon ñu ngi ñu ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu jot tam danañ ko koy diggale ci kër gi yépp ndax ñoo ci wu atte fenn fu ci ne na dem laaj leen jox ko seeni mbind mu boole ko yamam ñu dóor ko ci biir topp ko bu téere bi leer mu génne ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag. mëneesu ta bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi jóg buñ ko bàyyee noonu mu continuer jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu Tuubaa ngir loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal ànduñ ci ànduñ ci tey ànduñ ci li fi defaraatuñ ko ba téere bi tegu ci yoon loolu moom ñu ngi koy wax ci kanamu àdduna sépp di ko xam bu fekkente ne nag nanguwuñ ca dellu si waat ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad waxoon rek la waxaat. ba mu fi teree ay tere am ci ñu gàntu ci Mbàkke daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yépp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jën ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat yi bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu laa amoon ci lu ma ci leer la